del déglu del xool mbokk yeeg xaritu internet Feeling Dakar TV daleen ak jàmm ci actu people fii ci Feeling Dakar la première chaîne télé people et politique du Sénégal ñu door ko ak lu soxol clip ak soxal single bu bees bi nga xam ne moom la la roi di mbalax génn di yu Ndour tuddee ko wàññi ko wax itam ci teaser bi nga xam ne génnoon na fi te mu jar un million di bi nga xam ne teaseru clip bi di sanu mu def ko ak Baba moom woykat bi di kan Diallo daal di yi génn clip bi entier wax itam ci Bijou Ngoné mi nga xam ne mu ngi euh, tontu ci euh, yenn kàddu yi ñuy faral di yëkkati naan Bijou ne dafa tooñ euh, yenn ci imam yi mbokk ak xarit internet Feeling Dakar TV li bokk na ci li gën a fës ci Actu People buñ ci boole yeneen tomb yi ci toftalu dañuy daal di ñaanalante jotaay gi buur waaye balaa loolu taaxir lu leen ginnaaw bàkk gi ñu dikk ak yéen ci yaatal gi. yaa ngi Feeling Dakar. di nga am info yu leer ci people et sport Dakar yaa ngi Dakar asalaamaaleykum maa ngi leen di ziar bu baax a baax yéen internet yu Feeling Dakar TV di leen dalal jàmm ci Actu People tey jii di mardi 20 juillet 2021 ñu door ko ak lu soxal roi di mbalax Youssouma Jigéen Ndour mi nga xam ne jotoon na euh, taaxir jotoon na taxawandi ci li nga xam ne moom moo di euh, carrière musicale am ba jotoon koo xamle waaye terewul am na ay œuvre yoo xam ne waxoon na ni dina ko daal di teg ci marché bi nit ñi mën koy bége muy fansam yi nga xam ne dañ koy daal di topp ci euh, ñuy faral di def moom euh, Youssou Madjiguène Ndour mi nga xam ne moom la ñuy bàkkee le roi di mbalax daal dinay génne ab single bu bees euh, tuddee ko wàññi ko laata single bi di génn nag affiche su single bi képp jot naa def euh, tour du web maanaam foo tourné ci réseau social bi ci internet bi fu nekk da ngay seen ñu ko fay commenté bi clip bi génn nag ci moins de vingt quatre heures am na lu toll ci cent mille ci am na lu toll ci cent mille waaye itam romb li nga xam ne mooy deux mille commentaires yoo xam ne nit ñi doon nañ ko topp bokk itam ci YouTube deuxième tendance yi nga xam ne vidéo YouTube bi maanaam YouTube vidéo yi muy def tendance mu jël ci numéro deux moom euh, clip moom euh, single bu Youssou Ndour Jigéen Ndour bi lee ñu ngi am ñi ruumandaat ci suuf naan euh, dafay tontu ki nga xam ne moom moo di El Hadji Ndiaye bu 2STV bi nga xam ne génn na bu yàggul di ko tuumaal ne dañuy sàcc signalam ak yu bëree bëri ñenn ñi ñu ngi wax lu mel noonu naan ak tontu la ci wàll wi ni mel ndaxte moom Youssouma Jigéen du li ëpp daawul génn di tontu ci ay rajo ki waaye li muy tontu li ci ëpp ci ay wayam la koy def ba tax na wayam bii di wàññi lu ëpp ci ay baat yoo xam ne boo ko ciy déglu dafay mel ni am na ñu muy waxal donte ne ab waykat suy bind. yenn saa saay la muy bind moom rek moo ko mën a wax du kenn ku ko mën a tekki wala nga ni fii la ko jëmee ndax ñoom bu ñuy bind mën nañu bind ngir kenn waaye itam bu ñu bindee ngir kenn mënees na ko yóbbu fenn fu ci nekk waaye moom rek moo mën a indi ay leeral ci wàll wi ay euh, kàddu la yoo xam ne wala gis-gis la boo xam ne ñenn ci euh, ñi nga xam ne dañuy euh, déglu ay musique ñoo koy faral di wax Kan Diallo génn na kilibam bi nga xam ne moom la bokk ak El babamaal mu tuddee ko Sanu kilib boobu lee ñu leen di fàttali ne moom la fi teaser bi jaloon un million franc CFA fi mu toll nii nag kilib bi jamono jilee disponible na képp koo xam ne bëgg na ko seetaan mën ngaa dem euh, teewlu ko ci fi nga xam ne mooy ci chaîne YouTube bi nga xam ne moom la Kan Diallo daal di euh, moom. ba tey ci actu people ñu dem ci fi nga xam ne moo di plateau Sen bi nga xam ne fa la Moustapha Dramé toogoon da dafay euh, clash ki nga xam ne moo di Kounkandé moom nag xamle na ni Kounkandé euh, fi ak euh, ginnaaw tam xarit day fay kenn dootu ko tuddati maanaam kenn dootul xamati kan mooy Kounkandé muy kàddu yoo xam ne yëkkati na ko foofee ci plateau Sen TV Moustapha Dramé borom yàlla ay kase la ñuy déglu dellusiwaat. di ngeen ko fay. muy mel ni sama waajur rek sama mbokk bi Kounkandé sama ko fay. waaw après tam xarit xam Moustapha Dramé bu xaree géej gi nag. xam nga tey mu ngi mel nii ma fi ma toog nii ah fi ma toog nii. waaw mën naa ne la mën naa génnee fii téléphone sama téléphone boo xam ne samiri samiri yi lay lay jógee nga ne ma génneel ma yaa ngi de ma jëkk-jëkk def nii. def nii téléphone baa ngi nii. <laughs> ah gaa ñi ñi leen koy defee. dañ koy armé wu nga jàpp nii la ko kunkaan ne defee. la rek. Eh, eh, eh, Alima. Ah. def naa leen mu ngi noonu Moustapha Dramé borom ay kase foofu la fëla ak ki nga xam ne moom moo di Koukandé mi nga xam ne dafa ni dafay xar géej gi ci mbir moom mi la ñuy desandi moom Bijou Ngoné daal di nay indi ab tontom ci ñi nga xam ne ñooy uh, ñi koy uh, tuumaal ne dafa uh, yàq lu mel ni xeme ñi nga xam ne ñoo di imaam yi ba tax na moom Moustapha Dramé ak Koukandé ba mu leen dalalee ci émission bi di confrontation ñu daal di koy lankal boobu lépp woote. tax ba Bijou Ngoné di na leen euh, vidéo bi nga moo ko wax vidéo na bi muy def interview boobu bokkul ak bile jamono ndax jamono jile moom amul lenn lu mu séq ak benn oustaz waxul ak benn imam waaye itam amul benn ñagas-ñagas bu ñu nemmeeku ci digganteem ak imam yi kon nag bu sénégalais yi di yee fitna ci kawam bu ñu indiwaat beneen problème waaye moom mu ngi ci liggéeyam ba tax na amul lenn loo xam ne séq na ko ak imam yi jàmm ak salaam képp moo dox seen diggante jëflante donc nag am na ci yoo xam ne jarul ñu koy yekkoom fitna wala ñu koy jéem a ci kawam wala di ko euh, ak gàll ci ndoddam moom Bijou Ngoné miile lii la yëkkati ci ay kàddoom daal di koy xamle tontu ñi nga xam ne jàpp nañu ne dafa euh, taxaw ngir mën a contre contredire wala bokk ngir euh, di jàmmarloo ak yenn ci euh, imam yi moom Bijou daal di na euh, yëkkati yooyu le kàddu ci kàddoom yooyu le Moustapha Dramé daal dina ko woon tontu ci plateau bu Sen TV dellu si ci daal di koy xamal ne ko Bijou ngoone ci kaddu yooyu la daanaka Moustapha Dramé da ko indiwaat ci gàttal da ko delloo si teg ko ca place am nañu déglu kaddu yi Moustapha Dramé yi dellu si ci les plateau ñu invité woon ko ci benn télévision. 2STV Bijou Ngoné. Bijou suñu jigéen. waaw invité ko mu bàyyi ba dernier moment lànk bañ a dem bu Bijou di ko classe. ki ma invité dama dem ba démb cinq heures ma gis benn émission boo xam diggaay sax yàgg na waaye man maa ngi loo gis démb mu ne imaam yi. nañ leen seen gan yi toog ci ndax diw kenn di ko tee nangam. boobu ci waxu Wally Seck la doon wax. waaw ma ma ma rek ba ma gisee loolu. waaw xam nga dégg na deux ans waaye loolu moo tax nag lépp lay wax na rafet moo tax wax ju am solo ba ma ko gisee nag ma ne ah comme man xaw ma lu du imaam yi ñoo ma sang ba ma juddoo ñoo ma wat tuddee ma su ma dee ñu ma jullee ku ma gis nga wax leen ba bii lu mu mën ci dawla danaa ko def su ma ñàkkee jot nag ba nga responsable ci plateau soo ma toroxalee maa ngi lay remercier bu baax ci toroxal gi ndax bu am maa toroxal parce que maa fa ñëwoon ma faa ñëw. mais moom def na vidéo wax yow est-ce que bi nga bi nga formé woo nga ko wax ko ne ko doo ñëw. man beneen bi mooy moom bi may invité jaarut ci man. Hmm. dafa am ko wax mu invité ma pour ñu toog ci plateau man ak moom. yaa suma soxla di ma dimbale na dama am ay kilifa am ay mbokk lépp lu may def dama si diisoo ak ñoom. Hmm. la ma njëkk wax mooy bul toog ak diw ci plateau. sa kilifa yi ñoon la bul toog ak Bijou Ngoné. yaa fi tudd tur. ah parce que moom moo la invité woon. Hmm. waaw dama bëgg mu leer rek moom dafa def hmm. vidéo vidéo bi dafa viral c'est-à-dire si bi ñëpp ñu koy partagé. man su may toog ci plateau damay toog ku am xorma ci suñu kilifa diini yi ak suñu imaam yi ku amul ci ñoom xorma mënoo fexe bu ma toogee ci plateau. Hmm. waxal lu la neex. wax tontu nag laaj ak tontu nag moom xamul lu ci nit daw. wax lu mu bëgg toog maa la nga laaj ma may tontu ma loolu xam nga amu ci kenn tam problème. non non Actu People dañuy jawali ca fi nga xam ne moo di plateau bu jàkkaarloo bi bu euh, groupe Futur Média bu TFM télé Futur Média télévision Futur Média Birima ñu bari xam ko ci euh, plateau jàkkaarloo bi daal dina yëkkati ay kàddoom xam la ni njiitu réew mi su ko neexee mu laaj troisième mandat euh, loolee am dara nekku ci ci gàttal mu ngi taxaw di gën a dëggal ne président Macky Sall am na sañ-sañ ci laaj ñetteelu mandat moom Birima dañu koy déglu ci kàddu yooyu mu et sans état d'âme de toute façon Benno Bokk Yaakaar candidat en 2024 kan la xaw ko c'est pas comme moi moo ko décidé mais arrêtez avec ce troisième mandat y rien troisième mandat bu ci ay géej ci def ñu ci war a def gën leen ñoo politique dàq leen mu mu leen mu leen mu leen téye suñu làmmiñ dañuy jaaxle wax ak yéen nous sommes des comme tout le monde. on peut considérer que Birima nous a donné l'information. non non non les Sénégalais bien attelés bu ko war a def dañ koy def bu ko def ko def. yéen ñëpp man de feneen laa ko wax ni waxu nit ku baax. voilà nit ku baax ci réew mi xam li troisième mandat. jur Guinée xam lu mu jur Côte d'Ivoire. yow nga naan bu ko waree def daf koy def ci réew mi ak fi ñu jóge ñun sénégalais yi ak troisième mandat waroo ko wax waru la yow. waroo ko wax. warul ma amul waroo ko wax. tu ne dois pas le dire. pas que tu sais dans quelles conditions. non amul arrête. dawul ba yow la ñu war a arrêter parce que ça tu dois pas le dire. tu dois pas le dire comment. yow les Sénégalais se sont dans les rues. yow ak keneen ak keneen ak keneen pour dire non au troisième mandat de Wade. oui. tu ne peux pas voguer. est-ce que ça ça brûle le pays. tu ne peux oui. non oui. non avez raison, on a gagné. Oh, C'est faux. Il y a eu des morts. déglu ma wax la man xool déglu ma mm. Malal. oui tu as ta vie tu as fait tu as ce que tu veux. oui tu as préféré d'aller en prison quand tu veux man je ne l'ai pas préféré. su ko defee waxee may ma rek tu as ta vie tu la gardes pour toi. dama wax leen li ma wax. tii na doo téye sama làmmiñ dama ni. dama ni la bu ñu ci eggee. bu ñu ko waree def ñun. si la constitution non sunu benn bokk yaakaar. yéen ñan yow yaa koy yaa ñu téye si la constitution nous permet de. mais mais non mais malal malal malal respecte les gens. non mais Birima respecte la constitution dama dama. non mais qu'est-ce qu'il a am ce que je dis il a le droit quand même je dis si la constitution par par si la constitution donne autorisation à Macky Sall def mu def ko man bu def Macky Sall bu def bu def troisième mandat du ma tàggu tuuti naa ci du ma fekk bu ñu koy waxtaane xaw ma li mu mënul nangu mooy ngeen téye la mouvance présidentielle di leen noote troisième mandat il faut arrêter ça. il faut l'arrêter. Arrêtez-nous ça parce que vous êtes des opposants. Il y a eu la promotion de de de de de de ñëpp xam nañu beneen tool yi nga la promotion de de de de kii quoi de Ousmane Sonko. non je ne mais si si notre ami. non je mais je ne l'ai pas fait je ne l'ai pas fait je ne l'ai pas fait tout le monde sait que tu es l'homme du pouvoir. je ne l'ai pas fait c'est pas vrai ce que tu dis c'est pas vrai ce que tu dis. tu es l'homme du pouvoir et je pèse bien mes mots. dëgg phénomène a Ndiaye borom jàkkaarloo bi ñu bari xam ko ci euh, rigueur bi muy doxee ci ay kàddoom ak itam ni muy waxee saa su nekk euh, mbokk yi xarit internet Feeling Dakar TV li moo gënoon a fës ci ak people ni ki tey jile ci talaata 20 juillet 2021 ñu ngi wéy di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen ñu bàyyi leen ak bonus yi nga xam ne dañ leen koy jagleel saa su ne ci ak people fii ci Feeling Dakar TV la première chaîne télé people et politique du Sénégal joxanteeg yéen daje ëllëg ak jàmm jërë ngeen jëf. Pape daa benn tubaab bu ñëw suñ koñ di saraxe fonde quoi fonde cinq lañ mi saraxe fonde quoi gis na gars di saraxe rek tubaab bëgg a saraxe mhm. wooñu man ak ñaari booy man ak quatre booy muy saraxe mu ne léegi comme amul kudd léegi ku nekk dangay ngay mu foto la <laughs> man maa njëkk a bi ma góoxee tubaab bi foto ma rek xëm <laughs> gars waa tubaab lu mu war xëm kii li mu foto cuq rek xëm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 Dakar, notre plateforme d'information.